fësal féeteem wane fësal ne Modou Gueye kese xooluma leneen Modou Gueye kese Modou Gueye tey Modou Gueye suba xawaasi jërëjëf xawaasi aywa aywa xawaasi yow yaa topp ci sa yaay suuf yaay si soxla tey commune bi boo jigéen ñëpp uuf leen ne woo un sonno tayiwuloo jërëjëf yaa jigéen ñi nga àndal ñëpp wax naa ko département bi ñëpp xam sama fête ak moom muy Thié Mbacké sama yaay bopp la ngeen doxal muy Thié Mbacké Seck bu baax a baax a baax a baax. a yombaale jigéen ma ci tuddul ñii ma tudd yóbbaale nañ leen tamata nañ leen teg waaye nag waaye nag ku xam Modou Gueye am na ñoo xamante ni si. buñ ko tuddee gis leen ci wetam buñ gisul laajte fu ñu nekk te loolu nag kenn ci dugg ci sama rakku bopp sama ndeyjoor sama càmmooñ Modou Matinga. Modou Matinga. Père Diop yokkoo sama micro waaw Père Diop. buñ nee Modou Gueye daam Modou boo xamante ne si moom lañ koy toftale yu nekk ay jumeaux nekk ñaari fas ci benn biir moom Malick. Mamadou Diop Mamadou Diop Mamadou Diop Mamadou Diop Modou Matignan sama waa ji kenn du ko am na ñoo xam ne it bu ñu ñëwee fii tey faaw ñu tudd leen ci liggéey bu rëy bi ñu def su mel ni As Diallo kenn du ko gis waaye liggéeyam dafay matala lépp. waaw eh, déglu leen eh As Diallo jërëjëf am tamit ñoo xamante ne fii samay mag lañu samay nijaay lañu boobu ak léegi tamit ñu ci ànd. ku ci mel ne as mbay wérul sax waaye nanguwul bàyyi nanguwul xaddi nanguwul des ginnaaw officier jërëjëfati mbay nuyu tamit président mouvement yi fi nekk yëpp ak ñi nga xamante ni si ñu ngi ci na ñëpp kenn ku ci nekk am mbooloo bu mu jiitee ñoom ñëpp ànd ak ñun ci liggéey bi kenn ci ñoom nanguwul fes lu dul ne rek bëgg nañu moo nekk ci kanam Abuja su ma la tuddee di nga mën a yóbbaale ñëpp ñi nga xamante ne fii ñu ngi daan ay abu yow tamit nuyu ak sa ak Sall Sall ak kooku Sall bu ñu yaayal maa ngi lay nuyu bu baax a ma may nuyu communicateur yi président Allé jërëjëf ci seen liggéey waaye su ñu guddee dañoo a tudd wax si ma doom joo xamante ne si daf cee nekk nekk ci kenn ku sikki nag waaye ku nangoo liggéey muy sama doom la yaa sikki waaye jàmbaar su ma la tuddee tudd naa ñëpp tey nag ñu am koo xamante ne si boobu wax léegi tamit élection yi tàmbalee bàyyi na commune am bàyyi na département bi ñëw ànd ak ñun muy Baboy di Balla Gaye numéro 2 ba jërëjëf ñu ngi noonu kon nag léegi li ci des mooy Amadou Ba mi ngi jógee aéroport Pikine ñor gu mu ko ñor mu ne amoon ay étapes yu waroon jiitu dafa waroon dem Yoff dafa waroon dem Parcelles waaye Pikine lay njëkkee kon nag li ci des mooy ñu àndandoo ñun ñëpp dox dem fële xaar ko ci sotti autoroute ba su ñëwee ñu àndandoo ak dem ba stade yëngal ko toj ko dimanche di tax Amadou Ba suñu carte yi dafa doon waxee Amadou Ba gagné cinquième président kii bi Amadou Ba suñu carte yi Modou lañ koy jox di gërëm nag première dame Fatou Faye première dame ku ma tàcc première dame yàlla nga fekkee di leen Fatou moom laa gisul allo Foi. Não vou delegar esse خلوا قايروا مليك خلوا قايروا مليك خلوا أربيتهم قايروا مليك خلوا أربيتهم قايروا مليك Thank you.

nañ dem ba si kanam ah nañ dem instant nañ dem moo bi liggéey bi gars ñoo xar ñu ñoo ko xar Gracias. combat daal bu fa tànkee lañ ko dóor kii dafa fay bu ñu

waaw daf leen da leen jëlaat rek te daw. yow yow dafa si kanam rek man dama ko baare. Gannaaw eh nga taxaw baaxul waay mënul nii waay eh ànd ak jàmm waaw yaa ngi koy am est-ce que doo dem jëli ko andi andi li ma jëli ko andi andi ah Biggie! Hani neden dinliyoruz? Again, again, Nuran, Nuran, Nuran. Oh, oh, oh, Nuran, Nuran, Nuran. Nuran.

aquele aqui. toy ay daw rek ma ngay def ma ngay def ay ca jooni kii moo fi nekk filmel sixième président de la république sixième président kon nga cinquième ba pare kon cinquième bi Amadou Ba yoon bi fal na ko tous Fiiñ nekk am na ngir sa baay waaye sa baay moo la gënal fii njool bee fi nekk sixième président njool bi sel njool bi sel fii njool moo fi nekk Thank you. léegi may leen ñu génne ko may leen ñu leen ko Kamba may leen ñu leen ko may non dugal dugalaat ñu dem ñu dem. ah gisoo sama kanam bi. Waaw, rugby baax na ñu dem ñu dem ñu dem. Vai, vai, vai. Take up. Mary! Thank you. ñu dem ñu dem ñu dem Thank you. mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Gaay baax na fii waaw baax na gaay waaw gaay baax na fii baax na fii No, no, no. Kamzo derrière. terre derrière. voilà. merci beaucoup. xoolal na am ñu ñëw derrière derrière. Kanjo na am escucha, no escucha. léegi nag yéen ok d'accord jël mbooloo xam naa li ma la wax waa ji warul bëtt foofu bay jaar foofu bay génn fii ba téele ma foofu ah derrière derrière kenn du kenn daal. dafa loo neex fi yaa ko moom man ci Serigne Bamba yaa moom fii dama yaakaar ba lay jógee

am nyuma you imam kon ñu may ñu imam bi de C'est le choix du Sénégal, Thank you.